bon loolu je pense que moi je vais répondre froidement c'est impensable c'est inimaginable lu mënta nekk la parce que su doon nekk kon jarul moom. lan moo mënul nekk. mu renoncer à sa candidature dem ànd ak Amadou Ba. ma ne loolu mënul nekk du lu ñuy xalaat du luy mën a ne. ah am na ñu xalaat le contraire. ah euh, dama ne bu leen neexee ñoom ñu xalaat ko parce que ñoom nekkuñu dans la coalition Diao 2024. lu tax nga jàpp ni mënta ne. non li tax parce que su mënoon ne. mais kon jarul Mame Boye Diao ñu ni tànn nañ Amadou Ba mu jël yoonu boppam ñu day samp ndëndëm day nekk candidat. sauf bu ñu ko tànn du. yow ah, non xam nga àdduna ku nekk ak sa gis-gis. il était pas le seul bu waxoon ni àndul ci loolu je pense que démarche am dafa cohérente parce que depuis le début ñu waxee dañuy tànn daf naa toog na fii seen plateau mu ni bu ñu tànnee ki ñu tànn ñoom am nañ seen apréciation en fonction de ki ñu tànn bu ñu defee seen appréciation pare dinañ joxe seen position mais ñu tànn ko. moom gëmul ni ki ñu tànn projet bi mu war a porter moo xam continuité la moo xam lu mu war a mën a doon moom war na mën a ànd ak moom mu dem waxtaan ak ay nit yu gëm li mu teg mu dem ànd ak ñoom kon loolu bokkul ci li ñu xalaat xam nga ci lu ñu ne ci naka la ñu mun a waxtaanee ak sénégal yi présenter leen innovation yi ñu bëgg indi ëllëg bu ñu wóoloo dénkuñu bokk réew mi mais nekkuñu ci ay schéma politique. Mm. wala deal politique pour ànd ak. Pierre Paul wala Jacques. léegi xam nga xam nga bi ngay wax euh, sa njëlbeenu wax expliqué nga déchirure bi am si société bi te euh, suñ ko imputer le régime en place Mame Boye Diao dafay comptable si ci ci ci régime boobu noonu donc tout ce qu'on peut reprocher à ce régime là bi nga xam ne moom lañ fi bëgg a jëlee Mame Boye Diao est comptable à cent pour cent parce que il était au début ba ba ba ba ñu koy ndarkeem alors ma question est de savoir lan la am la la wala ban taxawaay wala ban discours ak wala ban jéego moom la euh, euh, Mame Boye Diao fas yéene am pour se démarquer mm comme ça bu ëllëgee su su bu fekkee au moment d'aller vers la population mu mu ñëw ak beneen kanam bu dul euh, un élément du régime boobu parce que dañu ne changement on peut pas euh, déshabiller Jean pour habiller Paul moom lan lay indi lu bokkul ak li nga xam ne moom la nekkee woon ak régime bi ba tey ji je sais pas si je me fais comprendre. waaw c'est un peu complexe mais bon. je vais benn rupture. benn rupture waaw statut de rupture boobu lan lay doon wala discours de rupture bi lan lay doon. ça veut que li mu wax sànq ni yéen lan ngeen indi lu bees. Mhm. ma ne ko Sénégal même problématique yi moo fi nekk. pas pas pas pas côté programme. parce que programme les gens ont écrit ak côté gouvernance et côté discours et côté discours. parce que il faut comprendre une chose aussi ah le président des moom la ñu fal en 2012 avec 58 ou 65 pour cent de l'électorat du Sénégal mhm. moom moo am responsabilité ëllëg quelle soit la situation rendre compte aux Sénégalais parce que moom la ñu jox le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires maintenant un Sénégalais. il peut pas être au fourré au moulin. non non non il a, non mais ak lu munti am c'est lui le l'acteur moom la Sénégalais yi di quels que soient les acteurs avec qui il a travaillé. moom mooy tànn aussi non non non la question qu'on doit se poser la question qu'on doit se c'est quoi c'est que un acteur politique. bu nekk dans un régime. liggéeyal leen est-ce que lañ ko dénkoon dafa am luñ fi luubal wala dafa am yorin bu mu ko yoroon bu ñaaw wala dafa am loo xam ne daf ko def dañ ko ci joxoñ baaraam loolu. mais parce que fii personne personne. de tous les euh. acteurs politiques personne n'est sorti de am na foo jaar historiquement. socialement am na foo jaar politiquement am na foo jaar. mais mais Ndiaye mais am ñoo xamante ne defuñu politique mais syndicalement am na fu ñu jaar. mais mais Ndiaye qu'est-ce s'il donc ce qu'on peut imputer à Mame Boye Diao c'est sa part de gestion dans la régime de dans le régime de Macky Sall. mooy en tant que directeur des domaines sa gestion c'était quoi est-ce qu'elle a été transparente. est-ce qu'elle a été sérieuse ah litige foncier sa gestion de la CDC toi même non xam nga jusqu'à présent kenn demagul porter plainte wala ñu yóbbu une commission à l'Assemblée nationale pour dire que gestion litige bi moo ci am problème bii la ci am lii la def kii lii la def mais mais Ndiaye est-ce que question yi loolu la pour man question yi leneen la moom mooy nga cheminer ak nit mhm. jusqu'au bout mhm. nga xam ne jeexal na yow nga rocce dem taxaw ah, na dem yow tamit ah, ah, mhm. day dem bon suñu fi si si affaire yi nu mu demee ba léegi mais nga nga cheminer nit ba mu jeex ba nguuram jeex nga rocce dem taxaw fee ni man àndatuma moom après nga commencé di critiquer mais loolu logiquement est-ce que ça peut se comprendre raison de plus loolu raison de plus raison de plus cest à que nga ànd ak nit nit ki dem

da xam da nga ci nekk ka taxoon nga nekk ci dem na ba jamono jot mu ni moom bëggatul day dem. mais yow nga jàpp ni jàng am nga xam-xam am nga compétence am nga dayo bi mun nga wax lu Sénégalais yi dégg. mais quand munoo fi ñëw ni saa yi la mu doon def laay def. non mais la mu doon def tu ne peux ah, pas dire que euh, non non la mu doon def. mais mën nga mais mën nga positionné xaaral ma expliqué. mën nga positionné mën nga am position bu élégante. position ba élégante moom mooy àndatuma moom mais na fii nii ñu bëri am na ñoo xamante ne àndatuñu mais duñu critiquer ki nga xamante ne moom lañ doon àndal dinañ cheminer seen yoonu bopp andi lu bees mais mais nekkul nga mooy la la mooy problème bi moom mooy ñu bëri dañuy verser dans xam nga nit booy politique da ngay dugg ci politique ak vertu ak ay valeur moom mooy moom mooy soo démarqué woo nga xam ni nga reconnaître kii ànd nañ ànd nañ bu rafet egg nañ fi ñu war a egg suñu ànd jeex na après man démarqué wu naa ne le fait que nga démarqué wu pas dire que bul sóoraale nit yi lu ñuy xalaat genre par exemple su fekkee da nga dem jël sa yoonu bopp nit yi dañuy wax yow traître nga wala wala tu portes les mêmes discours que lui non c'est pas ça affaire bi moom mooy nga doxalal sa bopp wax sénégalais dëgg parce que nit yi le fait nga leen wax dëgg rek ci la ñuy basé wu pour def la confiance wala ñu ñàkk la def confiance c'est da nga dégg yow fenn le candidat Mame am des waaw bien sûr non écoute rek. non non wax nga Pape damay bàyyi ma wax. ah Aliou Pape moom rapidement hein nous avons cinq ma par rapport ak Macky Sall au ma dara lu ma koy reprocher ça a été mon leader je le respecte je resterai loyal envers lui. Mm-hmm. li ma doon xeex moom mooy mu nekk candidat bu nekkoon candidat ma bàyyi tey suma candidature déggoo ko fenn mu yëkkati aucune critique acerbe contre ces gens là léegi nag am na sañ-sañ ni. man bëgg naa ngeen dénk ma réew mi sama vision bokkul ak vision Macky Sall su ma ñëwee am naa xalaat ni licence de pêche yi ni ñu koy joxee war nañ ko mën a organiser waat am naa xalaat ni pêcheurs u Sénégal yi war nañ leen mën a organiser en association ou en coopérative ñu jël lu toll ci 40 licences état bi accompagner leen jox leen ñu am ay bateaux yoo xamante ne dina mën dem na teewoon mu mën a combat ah, dama ni non non dama ni yow boo suivre le parcours de Mame Boye tu sais que c'est la daf doon wax li mu xalaat musuñu dégg fu mu non dama nag daf doon wax li mu xalaat bi ko bind yaa ngi dégg léegi nag xam nga Sénégal lu gën a garaaw mooy c'est caricature boo waxee benn action wala benn fait da ngay teg joxoñ baaraam ni kañ la nekkoon moom quand il était dans le pouvoir nekk un laudateur boo xamante ni tout ce que Macky Sall dit il dit c'est nit kese la il a une vision il a un projet il s'appelle le PSE xëy na fu mu koy waxee non y a comme dans les partis politiques il a des cadres où les gens donnent leur position. mais comme que ci mbedd mi di ko wax. alors ñu bàyyi ah, euh, li ma wax cest à que. Macky Sall ci ci boppam Macky ci boppam quand il a renoncé à sa candidature il a dit que man amoon naa droit def troisième mandat. d'accord léegi ñu ñëw ci